الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فضل سهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام كان سيدنا الحزيفة يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر
فقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أيها الأحباب نمتة أخرى من الأسئلة طريق آخر في الدعوة إلى الله الحقيقة أننا بحاجة إلى أن نعرف السلبيات التي يعيشها المسلمون كي نبتعد عنها كي نحذرها كي لا نقع فيها المسلمون كما ترون اليوم وتسمعون في مهنة شديدة أين الخلل أين الخلل في سوء فهمنا الأسباب التخلف أو سوء فهمنا لتخلف الذي نعيشه وسوء الفهم يتضاعف الخلل ويتضاعف الخطأ mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi kenn ci ñi doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudd Huzayfa moo yoroon secret yonent moom dafa am wax ju rëy ju mu wax nee na nit ñi day dañ doon ànd ak yonent di ko laaj lu baax waaye man lu bon rek laa ko daan laaj lan mooy lu bon lan mooy lu bon nit ñi fuñ ko laajee lan mooy yiw mu ne man ma laaj ko lan mooy musiba dafa mel ni nag dañ ko laaj waaw yow lu tax nga taamu di laaj yonent bi musiba rek ak mbon mu ne dama bëgg xam lan mooy mbon pour ma mont ma moytu ko ma bañ koo def parce que ñaar soo ko ràññeewul lu baax ak lu bon doo mun a bàyyi lu baax doo bàyyi lu bon jëm ci lu baax foog nga ràññee tey bokk na ci alak xeet wi li leen alak mooy ñu bari ci ñun dañoo nekk ci mbon dafa ne ci lu baax lan nekk parce que xamuñu moo tax moom Huzayfa su nit ñee yonent su yén su nit ñi ne yonent bi lan mooy mbaax moom mu ne yonent bi lan mooy mbon ñu ne ko lu tax mu ne ko pour ma xam ko ràññee ko moytu ko ndax soo xàmmewul mbaax ak mbon dangay wàmm rek dangay màmm rek daal di dugg di rajaxe dafa ne yaa ngi ci lu baax fekk ci lu bon nga nekk loolu alquran moo nu ko leeralal li Huzayfa doon def borom bi tabaraka wa taala moo wax ci quran qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunua borom bi nee na xoolal xam nga ku gën a sànku ñu ne déet mu ne waajoo xam ne ci lu bon la nekk dafa ne ci lu baax la nekk te ñoom ñu ngi ci mbon mais dañoo yaakaar ne lu bon li nu nekk lu baax la ñu ngi ci rey seen bopp du nu nelaw guddi léeg-léeg ca Dakar nga romb mbooloo yoo xam ne nañu bëree ak ni ñu takkoo ak ni ñu amee pas-pas ci ay sabara ki xiina ki tëgg ak pecc moo xam ne ak sikkar soo xam ne allahu akbar boo leen nee ni dafa bon dañ naan la yow am yow wéroo lii ñun ñuy tudd yàlla ñun ñuy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah nga naan ñi li lu bon la fekk ci yàlla loolu lu bon la du baax loolu tax Huzayfa laaj yonent bi mu ne nit ñi di laaj yonent bi anil xayr man may laaj anil shar lu tax ma xam ko mën kaa moytandi ko ayuhal ahbab mu ne wala ñu laaj beneen laaj sunu bopp laaj boo xam ne day jublu ci woote jëme ci yoonu yàlla dëgg-dëgg mbokk yi tey annana bi xaaja ila an naarifa alsalbiyat allati yaisuha almuslimun sunu tomb xutba mooy dëgg-dëgg ñun jullit yi tey soxla nañ soxla nañoo xam ay tolof-tolof manqué-manqué yi jullit yi dund tey tolof-tolof ak manqué-manqué yi teree nekk jullit yi ay jullit loolu wax dëgg yàlla soxla nañ ko ndax ñoo ngi përëx-përëxi di dem rek di tëñëx tëñëxi jàpp ne ay jullit lan fekk sunu diine des na kon laaj nañu xam alsalbiyaat tolof tolof yeeg manqué manqué yi jullit yi dund lan la ñuy jural mooy kay nabtaida anha sunu xamee ne lii daf ñuy tere nekk jullit lii day tax sunu lislaam du wér sunu ngëm yàlla day manqué ñu moytu ko ndax ku dem ci yàlla sa diine wérul sa ngëm baaxul soo teewee ci kanamu yàlla tabaraka wa taala yàlla dina la duma suñ ko xamee mbokk yi ñu mooy tandiku waaye suñ ko xamee danañu dimbali ba bun da duñ ci taab bi kama taraw na comme tey ni ngeen ko gisee ci àdduna bi al muslimun fi mihna shadida jullit ñaa ngi ci jafe-jafe bu metti tey jii fii nuy wax ak yéen xam ngeen ne Israël mu ngi bombardé jullit yi ba tax sax lenn ci ay njiit duñu wax yu jiite lislaam waaye ay jàkk yu dem barki de barkaati dem reer ji kër ambassade Israël dajeek ambassadeur bi moo xam lu mu leen jox ci ndogu moo xam lan la leen jox ci teraanga àddina ba tax ñoom ña fa demoon ñu signé ay signature daan ne Israël ñun yéen lañu àndal ndax jullit ña ngeen di duma ay terroriste lañ waa Hamas ay terroriste lañ waa Al-Qaïda ay terroriste lañ waa Boko Haram ay terroriste lañ ñun nag yéen ñii lañu àndal dégg ngeen coow loolu tey ci réew mi fu nu toll loolu lu mu nuy lu mu nuy wan di nu jàngal mooy almuslimuuna al yawm jullit ñi tey comme ni ngeen ko déggee di ko gis fii mihna shadid jullit ñaa ngi ci natt bu wér a wér a wér bu tar léegi nag laaj yi mooy aynal xalal turu yi pakk-pakk yooyu pax yi fan la nekk ba jullit jóg di faral Israël ba jullit jóg def diineem fecc ak way ba jullit jóg di jaawale yàlla ak keneen ba jullit jóg jënde àdduna ak diineem fan la njuumte li nekk war na nu laat sunu bopp fan la sunu njuumte nekk ba mënunoo nekk dëgg-dëgg ay jullit fa yonent bi jaaroon direct jaarloo fa sahaaba yi ci ay waxtu yu néew ñu samp islam ci àdduna bi waa mbokk yi loolu moo tax tey ñun mënu na faa jaar laaj yi moom mooy loolu aynal xalal dana nu fekk mu nekk fii suu'i fahmina asbaabu taxalluf ci sunu ñàkk dégg ci sunu ñàkk xam ci sunu ñàkk a comprendre lan mooy sabab yi tax nit ñi deltu ginnaaw nit ñi mënuñoo nekk ay jullit seen pas-pas mënta wér danañ fekk lu njëkk mooy foofu la waaye danañ fekk aw suu'i fahmina li taxalluf allazi naishuhu mooy danoo nekk ci ginnaaw lislaam dafa ne ñoo ngi ci biir lislaam léeg-léeg nga dégg ci Sénégal ñuy tiitaroo fii li fi ne bu ko yàlla xeebee ñàkk li am fii amul fenn dëgg la de kalimatu xaq araadu bihi lbatil dëgg bu leer la li am fii amul fenn laa ilaha illa bu ànd ak ay sabara ki ndënd jigéen ñi fettasu ñu naan jaayu leen yëngu leen loxo ci kaw bàkkaar ci suuf loolu amul fenn fii rek la waaye ka koy wax moom lan moo lan la ci jublu mooy ñun ci diine la nekk 100 pour cent musulman waaye boo ñëwee ci de ci ci ci pénc lislaam yi da ngay da ngay jàkkaarloog benn mbooloo moo xam ne dañ koo tant fii ba fa suba di yem defar ko ba mu rafet góor ñeeg jigéen ñépp jaxasoo fa kàddu yàlla di fa jit ñuy sikkar waaye ngay xool du mi doo gis lislaam ngay xool doo gis lislaam loolu mooy sunu jafe-jafe fekk doomu ndey yi mbokk jullit yi mbir yii xamuñu ko nekk ci ginnaaw lislaam di jàpp ne ñu ngi ci lislaam ñàkk a dund diine jàpp ne ñu ngi ci lislaam fekk xamuñu ko mooy li gaa yi def rek bàyyi ba jaan ji dem ñu topp ci watat bii dóor dafa ne ñu ngi rey jaan ji suba jaan ji ñëwaat kuy dóor watatu jaan juróom-ñaar fukki at ngay dóor watat wi boo fa amoon téeméeri at junni at it ndax rey nga jaan tontu bi mooy déedéet kon ñàkk a xam li nu nekk loolu moo tax du nu yëngatu du ñu jéem a jóg ci li ñu nekk dem wëri lislaam dem wëri la yonent bi indi woon dem wëri li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon sahabatul kiram ayuha al ahbab ayuha al ixwa ayuha al ixwa alladi yauddu sa ثابتا أن الذي يصيبك تأثيره في حياتك عشرة بالمئة danañ mën a wàññi tolof tolof yi peeg jullit yi wër leen ndombo manqué manqué yi ëpp na 100 pour cent li tax jullit yi mënuñoo ne bërët dem ci lislaam manqué manqué yi leen jàpp dafa bëri saa yoo rëccee ci bii beneen ne la crasse saa yoo génnee fii beneen ne la crasse kañ la ñuy dem ci yàlla dafa bëri te duy ndaw benn bu nekk toll na ne waamey géej ci ay manqué manqué ay lëndëm yu jullit yi nekk looloo tax fekk nag génnewuñu sunu bopp ci yii danu nu des rek nekk ñuy làmbatu lislaam fekk gisaguñu lislaam dañuy làmbatu rek jullit nag warul nekk làmb làmbatukat jullit warul nekk taxankatu guddi doy na rek borom bi tabaraka wa taala wax nu wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kasir doy na borom bi wax nu ci suratu shura aya 30 mu ne yéen jullit yi lu leen dal rek yéen a ko liggéey ak seen loxo allahu akbar lu leen dal rek yéen la kon du yàlla kon yàlla nattuwunu nattu yoo xam ne dana nekk ci kaw suuf suñuy noon dina duma yàlla nattoowuñu nattu yoo xam ne dana nekk ci kaw suuf di jaamu ñeneen bàyyi yàlla danañ yàlla nattoowuñu natt yoo xam ne danañ nekk di topp ñeneen bàyyi sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kon ndeke ñun ñoo ko def suñu bopp ndax yàllaa ko wax borom bi nee na wa ma asaabakum min musiba bépp musiba bu leen mën a dal yéen jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw mu ne fa bima kasabat aydikum yéen ñii yéen a ko fàggu ak seeni loxo loolu luñ ciy dégg mooy noo bàyyi li nu yàlla santoon noo bàyyi li nu yàlla melloo woon noo bàyyi li nu yàlla doon wax dem dugg ci leneen ba nu duggee ci loolu musiba daan nuy dal parce que ñun ñoo ko liggéey ak sunu loxo laa yanzilu lbala illa bi zamb wala yurfau illa bi tawba mbokk yi xam ngeen ne bàkkaar musiba bàkkaar du wàcc wala yàlla jële ko fi balaa yàlla du ko wàcce lu dul bàkkaar ya bari saa yu ngeen gisee balaa ci kër balaa ci quartier balaa ci dëkk balaa ci gox balaa ci réew bàkkaaru nit ña fa nekk ñoo bari kon nan leen xool suñu bopp lan moo tax tey àddina bi ci biir kër jullit yi ci dëkk jullit yi ci goxi jullit yi natt bi métti mooy bàkkaar ya bari bàkkaar ya bari ci ban waxtu lañ nekk ci waxtu nawet heure bi waroon naa fekk àll bi yëpp di jaxi-jaxi lu teye ndox mi lan moo teye ndox mi bàkkaar yee bari loolu kese moonu dal borom xam-xam yi nee nañ laa yanzilul bara musiba du wàcc illa bi zamb lu dul bàkkaar yee bari bàkkaar yi bu ñu baree rek borom bi tabaraka wa taala tëj bunti xéewal yi waaye mbokk yi wala yurfa ba balaa boobu yàlla du ko fi jële illa bi tawba lu dul nit ñi tuub ci jamono Muusa alayhi salaam yàlla dafa téye ndox mi ñu def lu ne ndox mi bañ a wàcc Moussa ñaan yàlla yàlla mu ne ko foog ngeen baaw naan ñu génn dem ci àll ba ñuy ñaan yàlla ndox mi bañ a wàcc yàlla ne Moussa Moussa ne yàlla yaa ne woon nañu baaw naan nga may nu yàlla ne ko duma leen may ndox parce que mbooloo mi toog di baaw naan dafa am ku ma tooñ ci tuubul feek tuubul ndox mi du ñëw Moussa daal di taxaw xutba daan ne mbooloo mi fi ngeen toog ni góor ak jigéen mag ak ndaw am na ci biir mbooloo mi ku tooñ yàlla te bu tuubul ndox du wàcc benn waaye ci biir mbooloo mi fi mu toog moom kese waxul ak kenn waaye ci xelam ak xalaatam la xalaat mu ne man mii la maa defoon nangam ak nangam maa tooñoon yàlla maa ngi koy jégalu sama borom maa ngi tuub waa ji jëm eggul suuf lu dul ndox mi wàcc ba nit ñi bëgg lam waa ji jëm eggul suuf lu dul keroog nit ñi bëgg na noo lab ndax ndox ndeysaan waaye xoolal borom bi tabaraka wa taala ci mbaaxam bi ndox mi wàccee wàcc wàcc wàcc Moussa daal di xool yàlla ne ko waaw yàlla gaa yi gaa yi gaa yi nekk sama kanam kan ci la woon kan ci moom moo la tooñoon kan la wan ma ko yàlla ne ko Moussa yow tamit waa ji bi ma tooñee wanuma la ko ma baal ko di la ko won na ma ko ko nëbbale woon ba mu ma tooñee noonu laa ko nëbbalee bi mu ma ko baalee kon yàlla mooy kan ci ñun est-ce que kon yàlla nangu nañu koy tooñ est-ce que kon yàlla bëgg na noo duma waaye nag nun noo dëgër bopp mbokk yi ci yàlla wa man lam tahdus al musiba fi nafsi maw'iza fa musibatu fi nafsihi akbar xam nga bokk na ci li gën a musiba bi gën a dal jullit yi mooy ñu nekk ci musiba te xamuñu ci liñ nekk lu mu xam nga ku toog ci buntu volcan buy bax di fecc ak a tëb kooku xamul fi mu nekk lan la ku ñëw ba ci buntu gaz bu ñu ubbi muy fararëri nga yor birige yow xamoo fi nga nekk lan la kon ñun fi nu nekk tey ci àddina di dund ci musiba yi nu nekk dëgg-dëgg dañ koo xamut loolu moo tax boroom xam-xam yi laaj ne nit ñi tey ci musiba yi ñu nekk lan moo leen ci génne aynal xalal fan la tolof tolof yi nekk aynal xata fan la njuumte li nekk aynal taqsir lan moo tax ñu gàttañlu lan moo tax ñu wàññeeku aynal tajaawuz kañ la ñuy jóge ci lii aynal adduwu kan mooy sunu noonu ayna zulmu lan mooy tooñ aoudu billahi min shaitan rajim ixwat al iman borom bi tabaraka wa taala mooy wax ci hadisul qudsi mu ne law annakum law anna awwalukum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu fi sacidin wahid fa yasaluni fa ataitu kullu insanin minhum ma saala yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla ci mbaax gi mu baax ci yéen bu fekkoon ne nit ñu njëkk ñu law anna awalakum wa axirakum ak ñu mujj ñi dañoo ànd di dund nit ak ginne ñoom ñëpp ñu nekk ci benn pàkk ñoom ñëpp ñuy laaj yàlla benn laaj borom bi tabaraka wa taala nee na dinaa leen jox kenn ku nekk la mu laaj te duma wàññi kenn ci ñoom li ma ko war a jox te ñëpp ay am te ñu njëkk ña laa wax ak ñu mujj ñi nit ak ginne ñoom ñëpp bu ñu toogoon ci benn pàkk ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala borom bi nee na fa ataytu kullu insanin minhum ma saala ma lam yaqus zalika min mulki shay'an danaa jox kenn ku nekk lam ma ñaan te sama nguur gi man yàlla dara du ci wàññeeku kon kay loolu mooy ñuy wan ne yàlla mi doon démb yàlla moomu mooy tey borom kattan la woon démb ak tey ak barki démb ilaa abadil abidin moo xam moom yàlla tabaraka wa taala nguuram gi lu ko neex rek moo ci am kon jullit ñi bu ñu amee yàlla bu mel noonu bu ñu amee buur bu mel noonu borom bu mel noonu ñu nekk ay tolof tolof génnu ci kon ñoom ñoo war a xool seen bopp ñu nekk ci ay manqué manqué génnuñ ci ñoom ñoo war a xool seen bopp ñu nekk ci ay tolof tolof génnuñu ci kon ñoom ñoo war a xool seen bopp mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci hadis bi ba tey borom bi tabaraka wa taala mu ne ñooñ ñooñu buñ ma laajoon danaa leen jox li anna ataa'i kalaam wa axzi kalaam kun fa yakun borom bi nee na man sama sama def ak sama dindi kàddu kese la sama def ak sama dindi kàddu la du ay bagage yu ñuy dajale du ay moyens yu ñuy dajale ji di ko wër déedéet borom bi weesu na foofu comme borom kàttan la comme borom mën-mën la moom borom bi nee na ay mbiram yépp kàddu la kun fayakun na am mu am du am du am jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu moom yàlla tabaraka wa taala mu ne kun fayakun zal fayazul mu ne fa man wajada xayran falyahmadi allah aza wa jal wa man wajada gayru zalika fala yalumanna illa nafsa buñ demee ba àllaaxira ëllëg ku fa fekk ay tiyaaba yow la waaye ku fa fekk ay bàkkaar du kenn ku dul yow tiyaaba yow yaa koy liggéey waaye bàkkaar yaa koy liggéey moo tax borom bi ne yonent bi leeral hadisu qudsi bi ne ku dem yowmal qiyaam nga fekk ay tiyaaba yow la bul yedd kenn yow yaa liggéey tiyaaba yi waaye buñ demee àllaaxira ku fa fekk ay bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow la te feek ñu ngi ci bàkkaar yi nii rek la jullit yi demee mooy seeni noonu di leen duma guddi ak bëccëg di leen wër ci àdduna bi di leen nappaaje tey ci àdduna fu nu nekk xool leen jullit yi néew na dëkk booy wax ci àddina bi lu dul yahut ak nasaraan ñi ngi ànd di faagaagal jullit yi foofu fu nekk bañ nañ ko sax guerre civile fu mu am jullit ñi la ñuy rëbb di rey Côte d'Ivoire moo ci mujj barki démb Sierra Leone woon tey Palestine suñ demee Irak suñ demee Tchétchénie suñ demee Somal fu nekk ñan la ñuy rey jullit yi lu ko waral mooy seeni bàkkaar moo bëri tooñ gi ñu tooñ yàlla ñàkk a nekk ci diineem ñàkk a wéral seeni pas-pas ñàkk a nekk ci ginnaaw yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom moo tax tey jullit yi nekk ci jafe-jafe yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala na'budu gayra muxlisina lahu diin walaw kariha alkafirun ibadallah يقول المولى في حديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتهبب إليهم بنعمائي وأنا الغني عنهم الله أكبر yàlla nee na ëllëg man ak nit ak ginne ñu ngi ci tribunal bu mag yàlla nee na ëllëg danaa samp tribunal boo xam ne ki ñu fay àtte mooy nit ak ginne waaw kan lañ fay dajeel yàlla waaw yow yàlla lan la la nit ak ginne def ba nga leen di yóbbu ci tribunal yàlla mu ne axluqu man yàlla maa leen bind wa yubadu gayri ñu dem jaamu ji keneen bàyyi ma man yàlla maa leen sakk ñu jaamu keneen bàyyi ma yow yàlla ndax loolu rek lañ la def mu ne déedéet wa arzuqu wa yuskaru gayri man yàlla ma leen di wërsëgal ñuy sant ñeneen naan ñeneen ñoo leen ñaanal ñenn ñi naan ñii seen liggéeyu ndey la ñenn ñi naan la nangam la takk ñenn ñi naan nangam la la la la raay ñenn ñi naan nangam place sangam la sangu looloo tax mu am lii lépp allahu akbar ëllëg nit ak ginne danañ taxaw tribunal ci kanamu yàlla yàlla ñaar la leen di toppee maa leen bindoon ngeen jaamu keneen maa leen wërsëgal ngeen sant keneen te man yàlla moomu tabaraka wa taala xayri ila al ibadi nazil sama yiw fu ngeen toll mu ngi ak yéen sama yiw lu baax rek ngelaw li ngeen di nooyi kon moo leen ko jox ku ko moom bët yi ñuy xoolee ku ko moom nopp yi ñuy déggee kuñ ko defal gémmiñ yi ñuy waxee kuñ ko defal sunu loxo yi ku ko def sunu tànk yi suuf si ñu nekk asamaan si tiim nu jant bi àll bi ku ko indi lu nuy kannasu kannasu di dof dégg guñ fi ku ne maa indi ngelaw li kon man dan maa war a sant dégg ku ne ah yow maa la defar sa bëdi ah danga maa war a gërëm ñaanal ma yow kat maa la ah waaw yàlla bu fekkee xéewalam 24 heures sur 24 mu ngi wàcc sunu kaw lu ci yey lan moo yey ci xéewal yooyu yàlla di wàcce mooy ñu sant xoolal yemul ci loolu de yemul ci bind ñu yemul ci xéewalam di wàcc ci ñun waaye mu ne atahabbabu ilayhim bi ni'ami fu ñu nekk rek sama xéewal a ngi ñëw 24 heures sur 24 wa anal ghaniyu anhum te kat loolu ma leen di jox sàkkawuma sàkkuwuma ci ñoom ñu bayal ma tool soxlawuma leen wa anal ghaniyu anhum dama leen doylu buñ ma gërëmee baax na buñ ma gërëmul baax na suñ ma jaamoo baax na suñ ma jaamul baax na man yàlla faalewuma leen bu leen yaakaar ne seen jaamu mooy tax man yàlla ma nekk yàlla seen ñàkk a jaamu mooy dindi sama nguur su ngeen yaakaaree lu nax ngeen seen bopp wa anal ganiyu anhum faalewuma leen man yàlla moom yàlla yemu ci mu ne wa yaxdabuuna ila bilmaasi mu ne fu ñu nekk kat xoolal nit ñi xam nga lu ñu may fayee fu ñu nekk ay bàkkaar lañ fay def bàkkaar yi kese mu ne loolu kat lañ yaakaar ne moo may fay yemuñ ci wa hum afqaru shay'un ilayya te ñooñu kat di ma won ak dëgër bopp di ma won ay bàkkaar yu bari ñoo fi gën a ñàkk amuñu dara ay pauvre lañ ay miskin ku ma ci yëngal sa bëñ rek benn bëñ moo gën a tuuti ci sa yaram su ma ko yëngalee rek nga ni làcc ci suuf tëdd doya di torox bëñ bi rek moo ko yëngalee benn bëñ moo gën a tuuti ci ñoom yàlla ne bu ma ko yëngalee kenn ci ñoom du xëy dem tool kenn ci ñoom dugg ci gaal gi nappi kenn ci ñoom sax dana dem ba dootul ngaan gémmiñ suy wax baaraam lay waxee ba pare yàlla nee na ñu may yëpp ñu may yëpp allahu akbar kon nanu xam sunu borom doomu ndey yi nañu xam sunu bopp xam sunu borom li ñu indil moom yàlla tabaraka wa taala mu sàkk ci ñun ñu xam moom mooy kan ñu xam diine jim ñu indil ndax ñun kat ay faqiir lañ ci kanamu borom bi mu ne man aqbala alayya minhum talaqaytuhu min baid ndeysaan wala kenn ci ñoom sax ku ma doon tooñ bis bu demee ba génn ci tooñ yi daw jaar ci yoon bi ñëw ci man yàlla nee na damay yàkkamti mu yegsi ba man maay ñëw gàttandu ko damay yàkkamti mu yegsi ba duma toog di ko xaar man yàlla damay koy wàcc gàttandu ko allahu akbar te xoola waa jaang ma doon tooñ kat fukki at fukki at ak juróom ñaar fukki at waaye keroog ba mu sànnee la ma doon toñ ginnaaw jublu bi ñëw ci man daw jaar ci yoon wi yàlla nee na toogatuma di ko xaar waaye talaqaytuhu damaa wàcc ñëw gàttandu ko ndax yàkkamti mu ñëw ci man mbokk yi nañu xam sunu boroom jalla jalaaluhu moom mooy kan ci ñun yàlla yemul ci yoolu tabaraka wa taala moom sunu boroom ginnaaw ba mu ne danaa wàcc gàttandu waa ji mu ne wa man arada anni minhum naadaytuhu min qarib waa ji daf maa waayi ndeysaan daf maa woon ginnaaw di dem di caaxaani ma taxaw man yàlla de naan ko eh yow sama jaam bul dem foofu waaye ñëwal fi waay nga la waay bul dem ci caaxaani kaay ci man wa man aradahum képp ku ma dummooyu minhum ci ñoom naadaytuhu min qarib ah sa doom sax bu la wanee ginnaaw ndeysaan nga bàyyi ko bis bu dajalee bagage ne la papa nga ne ah mu ne damay génn kër gi nga ni ko demal sa jabar sax da lay sëyal waaye bu la nee mënatuma fi ne dem naa nga ni ko demal waaye xoolal jaam bi bàyyi yàlla yàlla taxaw naan ko bul dem aw ma kudul yow kaay maay sa borom ñëwal ci man kañ la ñuy dem ci borom bi yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك mbokk yi ñu góorgóorlu fatt diggante yi tollale sàppe yi fay portable yi bañ pare julli allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعضلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله